sant bu baax a baax le président de la république Macky Sall ginnaaw ba mu jëlee mesures yu am importance yi nga xamante ne jël na ko jëmale ko ci askan bi loolu yëpp nag li ko ëmb rek mooy euh, euh, assurer euh, santé wu ak sécurité bu population bi waaye nag ñun ñi nga xam bu jëlee dogal ñun ñi nga xamante ne collectivité territoriale lañ suñu responsabilité moom mooy ñu wéyal dogal yooyu fexe ba dogal yooyu ñu jël ñu fexe ba ci askan bi ñu respecté ko lolu taxna ba ci élan de solidarité bobu ñu am euh, woote won nañ fi benn conseil communal bu regrouper acteurs yépp waxtaan ci lu jëm ci lolu suñu responsabilité nek ban rôle lañ wara mëna jël def ko ci ba mesure préventive yi nga xamante ne ñu fexé ba respecter ko waaye yit li nga xamante moy disposition nécessaire yi ñu wara jël pour accompagner suñu personnel médical ci xeex bi nga xamante ne koy xeex li jëm ci coronavirus nak ma am mbégte lool recevoir fi ay Pikinois recevoir fi ay citoyens yo xamantene li len di euh, wutaleeg yenen citoyens yi moy sen jëf ba tax ñu nek ben groupe tuddé sen bop Pikine jóg jëf tay ma recevoir len ñu ñëw pour apporter sen contribution ci taxaway bi nga xamantene ku ci nek ci ñun war na am ci jamono yu metti yi nga xamantene ñong koy dund kon lolu ci turi population bu Pikine yépp ma ngi len ci na ci tour population Pikine Ouest bi nga xamantene fa la nek comme maire ci sen contribution nak japp nañ ne kat ñom li jëm ci désinfecté ak li nga xamantene jëm na ci édifice public yi ñoom day am nañ lo xamantene war nañ ko ci mëna apporter ñukoy accueillir avec beaucoup de joie ba paré won leen nit suñu taxaway suñu disponibilité ci taxaway bi nga xamantene bëgg nañ ko am ñun ñu accompagner leen ci moment la aussi pour man ma lancé appel ci panel boobu nga xamante ne mooy Pikine jóg jëf lancé ko appel nag suñu mbokk yi nga xamante ne bitim réew la ñuy dund tey ñu am taxawaay nag ci réew mi waaye ci jamono yii ñu toll di ko dund ñoo ngi soxla ci ñoom it taxawaay bu gën a dëgër

feebar boobu nga xamante ne tey mooy coronavirus yem ci li nga xamante ne kaa yi ñu détecté ci biir réew mi ñuy ñaan ñëpp ñu tënku ci mesures yi nga xamante ne moom moo ñu tënk ñun ñëpp kon maa ngi leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax jërëjëf.